بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله بك جلدي بك تلسبكتاتري سيتان سين شين بيدي المسبح تي في نيغلين دي نويب باخ دي لين زيارة دي جيتل چي نويوب اك زياري بروم كرغي پام منصور مباي دي كو نويو دي نويو سخنة ينجابود جيب فتبارك الله waaye itam di nuyu Chérif Cheikh Ahmed Tidiane mi ñuy àndal ci émission bi di nuyu ñi bàyyi xel émission bi yépp ci seen chaîne Al Misbah TV ak ci yeneen support yu ñu ko mën a seetaane ñu dellu si waat ci seen darsu kifaayatu raaxibin bu Cheikhul Haj Malik radiallahu anhu keroog ñi ngi nekkoon ci shurutul muqtada ñi ngi nekkoon ci charti ki nga xam ne dafa nekk ab royukaay maanaam kuñ war a topp pour mu gindi jaam ñi ñëwoon nañ ci ñetteelu ponk ba te moo di mu xereñ ci mbirum yàlla ak gis-gis yu xóot ak xam-xam bu wér même bu amul ak fasaaxa gum ko mën a génnee te itam bum nekk gàllankooram tarxiis yi muy def léeg-léeg ba daanu ci bàkkaar na fëggatuwaat rekk jóg moom nit a ànd kullu bnu aadam xataa waaye wa xayrul xataa'ina tawaabiin aw kama qaal ñéppay juum ñi ngi rawantee ci ñiy juum di jubbanti ñoo ñoo gën wax ne itam bu ci ak mooy yàlla waxoon itam na moytu di tiitaru ak di wanewu ci jaamu yàlla gi muy def waxoon na itam na moytu wékk yaakaaram yépp ci jaam ñi foofu lañ tolloon keroog أو الطمع في خلق الله لأن هذا أعمى البصيرة نين اللي مو يقوم بخل كنت ينجي ورا تعملي تنبيه ومما ينبغي بل مما يجب على كل من جلس للإرشاد أن لا يكلم الناس مما لا تبلغه عقولهم نين أبيتيني nee na bokk na ci li yell wa mimma yambaxi bokk na ci li nga xam ne yell na bal bàyyi loolu sax li fi nekk mimma yajibu da nga naan bokk na ci li war parce que boo nee yell na rek day mel ni mën na ko def mën na ko bañ def da nga naan bokk na ci li war mimma yajibu ala kulli man jalasa ah, lil irshaadi war na ci képp koo xam ne toog na ci fëte yu gindee képp koo xam ne yegg na ci maqaama yegg na ci darajay toog ci fauteuil yu di gindi jaamu yàlla yi mu ne ko yegg ci daraja boobu ak maqaama boobu war na ci moom an laa yukallima naasa mimma laa tabluguhu uquluhum war na ci moom bu mu waxee nit ñi ci niveau boo xam ne seen xel yeggu ca war na ci ki nga xam ne yàlla dénk na ko fauteuil yu muy gindi jaam ñi mu bañ a waxee ñoom loo xam ne dafay dofloo seeni xel maanaam yow am nga niveau boo xam ne niveau bu kawe la nga waxeek ñoom ci niveau boobu ba noppi mu jural leen ay njaxas ci wàllu xel naan mën naa nekk ak mënta nekk ak lii muy wax nii kay lii kay dara amu ci xoolal fi seen xam-xam yem nga waxeek ñoom foofu te yem ca hmm, hmm. mu ne li an anna dalika ko loolu kathiran maa yajlibul fitna dafa bare lu muy bijj fitna maanaam yëkkati niveau boo xam ne ñi ngay waxal seen xel yeggu ca mu ne bare na boo ko defee danga leen indil fitna ci seen bopp te fitna ga mooy dañuy mujj weddi mbaa diingat ya tàmbali ku ne xam ne ne ku xam diine xam ne niveau yu du ñu mës a tolloo loolu la yàlla def am na ñu am xam-xam lool bari le ko lool géeju ci lool am ñu amul dégg géeju ca lool am ñu am tuuti xam-xam ak tuuti dégg am ñu am xam-xam amuñu dara ci dégg am ñu amul sax xam-xam yàlla tere ak dégg waaw yow nga war a dajeeg ñii ñëpp di waxee ñoom ci niveau boo xam ne wax dëgg yaa ngi lor nii waxal ak ñoom ci niveau bi ñu tollu wax ju leer ju set ñu dem jëfe ko mu jeex wal amru bil maaruf gis nga bil maaruf nag leen digal li ñu mën a xam nga xam ni niveau bii ab jullit gàtt gàtt niveau da cay yegg li ann al majalisa mu ne ndax jataay yooyu géew yooyu ñuy def ci wàllu yàlla qalla ma taxlu an il munkirin néew na bu muy ñàkkee ab weddikat yaa xam ci conférence nga toog yaa xam ci daayira nga toog yaa xam ci gàmm nga toog yaa xam ci ab ziyaar nga toog jataay ba lu mu rafet rafet xamal ne du ñàkk moos am ku fa nekk koo xam ne ab diingatkat la walla ab weddikat la te am na nooy waxee wax ji rekk mu dofloo xelam mu weddi ko su boobaa niveau bu kawe bi nga waxee moo ko ko yóbboo fa yakunu alkalaamu ta'niisan lil aarifi wal mu'taqidi su boobaa wax ji nga wax yow ak niveau bi nga ko waxee ni mu kawee wax ja day dana nekk wéttal ci arif billah ki nga xam ne xam ne ci yàlla dara waaye dana nekk wéttal ci borom pas-pas xam nga taalibi taalibi bu pas-pasam dëgëree mënoo koo wax lu ko jommal taalibi bu pas-pasam dëgëree lu sëriñ bi wax mu ne dëgg la mais taalibi bu pas-pas ba mataleegul soo ko waxee lu jéggim xelam mu weddi la arif billaahi bi nga xam ne yàlla dimbali na ko xam na ci yàlla dara niveau boo mënti waxee ci yàlla dina ko nangu ndax moom day fekk ci géej yooyu la nekk di tëmb waaye am na ku des wa fitnatan lil munkiri am na koo xam ne nii nag wax dëgg yàlla moom day weddi moom day diingat moom moom xol ba nangoogul cent pour cent kooku yow pour nga sauver ko da ngay moytu di waxeek moom ci niveau boo xam ne xelam yeggu ci yow yaa ko mën a dimbalee loolu en tant koo xam ne ab gindekat nga parce que tamit foog nga xam ne yow ñëwoo pour génne leen ci diine ji mais dangaa ñëw pour gën leen ci nuural waa léegi boo bëggee waxeek ñoom ci niveau boo xam ne yeggu nu fa kay da leen di weddiloo moo tax mu ne fa yakunu alkalaamu ta'niisan lil aarifi wal mu'taqidi waaye wa fitnatan lil munkiri dana nekk wéttal ci enrif bi ak borom pas-pas bu wér bi waaye dana nekk fitna ci ki nga xam ne moom aji weddi la qaal ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأط بالأطماع xatta tajahama wallaay wax na dëgg mu ne xam-xam dañ koy ñoŋal gis nga xam-xam bu ko wàccee ci barab bu ko méritoowul di sotti xam-xam ci ñu ko méritoowul moo nga defal wurus wala or ba mu jékk nga takkal ko mbaam xuux ñoo yem mbaam xuux boo defaloon sa seenu or bu rafet mbaa sa seenu wurusu marjaan wu rafet ba mu jékk nga dem takkal ko mbaam xuux du xam valeur bi parce que day jàpp ak buum rek nga takk ci baat bi mais boo ko takkalee nit nag mu jox ko gëdd maanaam xam-xam da nga koy jox ñi ko yelloo nit ku ne xooleel fi niveau xam-xamam toll nga jox ko ko mu ne walaw anna ahlal ilmi su fekkoon boroom xam-xam yi soanuuhu ñoŋal nañu xam-xam soanahum nit ñu ñoŋal leen bu ñu wattu woon xam-xam aar ko di ko def fa mu yellee fu mu yellewul nu denc ko nee na kon ñoom nit ñi danañ leen ñoŋal danañ leen denc danañ leen ormaal ñoom boroom xam-xam yi waaye nag walaw adamuhu fi nufuusi la udima bu ñu màggaloon xam-xam it jox ko gëddëm cëral ko jiital ko ci lépp nee na nit ñi màggal leen waaye massa defuñu loolu walakin waaye ahaanuuhu dañoo doyadal xam-xam fa haanu ñu doyadal borom xam-xam yi moo tax borom xam-xam tekkitul dara ci dëkk bi xam nga loolu xam nga tax tekkitul dara parce que borom xam-xam yi ñoo njëkk a doyadal xam-xam. gis nga de wa dannasu mu ne dañu tilimal xam-xam wa dannasu dañu tilimal mu xayyaa u xar kanamam nee na dañu tilimal xar kanamu xam-xam ah, nan la ñu tilimalee xar kanamu xam-xam. bil atmaa yi ci ay xemmemteef bëgg ay teraanga koo xam ne jàng ba géeju muy xool ay teraangay àddina yu ñàkk fay fayda mu mel ni du boroom xam-xam léegi-léeg nga gis nit ku am xam-xam yi nga gis ko ci yu suufe di wax wax yu suufe ngir bëgg teraanga ñu di ko jëf ay jëf yu suufe ngir bëgg teraanga tax kooku toroxal na xam-xam nee na moo tax boroom xam-xam amatul gëdd parce que ni xam-xam amee gëdd ñoom dañ koo am dem diko wuté ay xemmemteef yu nekk ci loxo nit ñi néna ñu di leen def lo yu soufé di leen toroxal ba mujj ñom nan waccé wàccee xam-xam non lañ leen waccé légui wa dannasu muhayyahu bil atma'i ci ay xemmemteef hatta tajahama ba ba xar kanamu xam-xam da mujj ñëkk moy kanam nga neexatul kanam nga rafetul motax xam-xam kenn xemmematu ko léegi ñëpp téranga ki alal lañuy wut ndax gis nañ ne léegi ki am teraanga ak alal rek moom la ñuy tagg moom la ñuy yëkkati moom la ñuy aj ci kaw mais borom xam-xam moom wàcce nañ ko ci suuf parce que joxatuñu xam-xam valeur am sekam yow mi ko jàng ba am ko yaa ne ko fa kupp ay teraanga tax nga toroxal xam-xam di saalit di wax ay waxi dof ngir teraanga yooyu nit ñi dañuy xam ne xam-xam nekk amatul chance kon alal rek a am chance boo amee alal bokk ah, mag ñi day xam-xam rek a kontoon soo mokkalee alxuraan ñu ne diw kaang la soo jàngee ba am xam-xam ñu ne fóore la takkal la jabar sampal la kër jox la tool jox la fas yëkkati ay teraanga jox la parce que dafa jànge woon ba am xam-xam ñoo ñoo xamoon dayu xam-xam ku nekk yàkkamti laa may doomam ñii yàkkamti laa daggal suuf nga ami tool ñii yëkkati seeni doom jox la pour nga def ci ñoom li ne ci yow waaye léegi ah doy na waar de mu ne waalam na xam انما اوحي لغا خامني وحيوس نكو الى الانبياء تي يونتي كما سياتي في الباب الثاني كوم ني موي نيوي تي بي على ثلاثه اقسام تي نيتي خاجي نينا ما وجب تبليغه الى الناس فهو المشروع وما هو فيه على التغيير وما وجب كتمه من خم خم نيت لا تي واتي تي يونتي maa wajaba tablixuhu ila nnaas fa war ci yonent yi ak boroom xam-xam yi ak képp ku yàlla dénk mbooloo nga jottali xam-xam boobu par la force loolu obligation la maa wajaba tablixuhu ila nnaas fa huwa almashru nee na loolu mooy xam-xamu sharia ab yonent ab waliyu ab sëriñ ab imaam akub ustaas ci yem xam-xamu sharia ku ko nëbb boo deewee safara nga jëm yonent nee na du yem ci dugg safara ay laxaabi safara lañ leen di defal di leen ko ngalaabee naan leen yéen a noppi woon bañ a xamal jaamu yàlla yi xam-xam bi leen di jëriñ mooy xam-xamu sharia bi kon benn xeetu xam-xam a ngi noonu wama hum ak la nga xam ne ñoom fii ala taxyiir yi ñi ngi ci ak tànnuloo ak beneen xam-xam boo xam ne yàlla da koo nàccal ci seen dënn jànguñ ko ci téere de mais yàlla leen ko yenkeewal ci seen dënn nee na boobu nag yàlla da na a tànnloo bu la neexee xamal ko ku la neex bu la neexee nga noppi ci loolu lañuy tuddee yenn xam-xamu biir yi nga xam ne nit ki sañ na cee xool ku mu wóolu mu wax ceeg moom ku mu wóoluwul mu noppi ca ba tey mi ngi nekkaat ci logique nit ku ne waxeel ak moom fi xam-xamam yem soo nekkee ay nit yoo xam ne gëmuñu tasawuf ñu tasawuf am na nit amuñu niveau tasawuf yaa yi wax leen sharia bu leer rek nga dem sa yoon bu bu leen jéem a convaincre ci dara gëm nañu yàlla ñi ngi topp yonent bi waxal ak ñoom ci a ngi dem seen yoon soo amee ku am niveau bu baax gëm ne tasawuf ab doctrine la gëm ne niveau la gëm ne saxaaba yi amoon nañ niveau bi nga waxtaan ci ak moom loo tax mag ñi daan laaj ndax jataay bi ndax mbaa asamaan si niirul waaw mbaa cere ji amul ñebbe waaw parce que bobu buñ buggee wax dara ci yenn xam-xam yi nga xamné lér na len ne waaxu dem ci téré ba taxul nga jot ci lu yàlla yenké wal sayidina Cheikh la radiyallahu anhu dañuy xol ñen yaakar ne am nañ niveau dégg ko ñu wax kook ñom ña amul niveau dégg ko ñu jéggal la duñ ci xulo ak yow duñ ci xex ak yow waaye duñ ci wax ak yow nak loolu moy wama huwa fi ala at-takhyir wama wajaba katmuhu ak benen ñettelu xam xam-xam bo xam koku mom par force neub gis nga de bi dang ko wara wax bi lo lañ la wax ak nopi bi da ngay nopi par force allahu akbar lol moy am ta bu ko laal moy yalla yenke wala xam-xam bo xamni ñimi wu ko wax bok te lol ku ko amul du bokul ca gaña ko xamne ne lu xam wax ko xamul lu bari ma la wax li am lo xamne kenn ne wu ko wax kenn la wax de kenn ci ñuko yalla xama xel di ko wax ci adina waaw seen na am na ñu ci wax sax nee na am na ci loolu bu ko waxoon non seulement nu yéeféerloo ko waaye danañ na ko deqi rendi te ñu ko rendi danañ aw yoon ndax bir na ko ne loolu du wax dëgg yàlla mënuñu koo xam sëñ bi yàlla yàlla ku yàlla ku bare le la waaye ku xamal jaamam ñu lu bare la nag waaye am na teraanga joo xam ne bu la ko yàlla defalee ci sa dënn te mu leen la xam-xam bi mbaaxu yàlla dong nga tax mu sol la ko te boo ko waxee ku amul niveau mu loru ca loo ciy wax denc ko moo tax am na xam-xam boog góor yàlla yi dañu daan jooy naan lii bis bu ñu demee ba fukkeelu siècle ak ñeent xam nga ñu ngi vingt et unième ñoom dañ doon wax ne quatorzième siècle sax bu ñu fa yeggee wax yu mel nii ku ko amate gas ko suul bu ko sax wax nit ndax ñiy mujj ñëw duñ ko sàmm dañ koy wax moo tax ngay dégg dof yi di telli telli léeg-léeg di wax wax yoo xam ne fuñ ko waxee ñu def leen bu yëfër waaw ndax am loo xam ne dañ koy nëbbu par force am na xam-xam boo dul wax te loolu yonent yi amoon nañ ko fa kullu man alima shay'an képp ku xam dara mimma taqaddama min al warasati ci li nga xam ne jiitu woon ne ci xam-xamu ndono ya ca mag ña fal yakun ala aqdamihim na nekk ci seeni ndëggu min at tabliixi ci jotal lam war a jotal wa taghyiri ak tanlo giñ ko tanlo ci li mën nako wax li mën na ci nopi sans dépend ci mom no xol rek niveau nit ki mi waxal wal katmi mi ak li nga xamne dang koy neub koku mu neex la mu nakari la do ko wax ak nit yow ak yalla kep kese waaw seen cheikh deewaale na xam-xam yo xamne ba tay ngaangu ko doomu adam buy dundu ta am nay khalifa yu jeex te dama ko jëlele mom Mudun mi don joy ñetti téméré sharia yi yalla naccal ci dënnam te na amul kum ko jangal waaw li annahu ida azhara shay'an nee ndax bobu xam-xam bu ci lenn feeñee rek mimma ci yi nga xam wajaba dafa war kat mu ñu nëbb ko asara day jekk fitnatan azimatan ala nasi dana jekk fitna gu reere ci nit ñi te faham na nga xam lolu nak motax mag ñi buñ la daan yar amna ci yo xamne dañ nan la li aw du ko tuddu am na kay kayfa yoo xam ne kenn du ko bind sëñ du junj na ko ba tàyyi am na ci yoo xam ne boo ci yeggee dañuy maasale suuf si rek bind ko ne la xool ko nga xool ko ñu fini pare nga ci nee na am na ci yoo xam ne sax mag ci seenu farlu lu ñu ko bindal kéwal ni mu gaawee ànd ak yow ba ca àll ne la xool ko nga xool wet gi gis ci baat bi rek mu ne fes dem nga pare ci yow gis googu nga ci am c'est fini te mënoo ko defalaat nit ndax foog nga yegg ci niveau boobu pour mën koo gis mbaa nga mën koo won nit c'est fini du lu ñuy wax loolu bu amul àddina tukki moom la ñu wax ne mam mansour am na ku ko ci sonn loon lool ci aw tour jox ma nangam jox ma nangam jox ma nangam nee na mu xëy ñu dem ci tool yi ñëw rek mu def nii mbub mi rek làmb gis ci ab xaaxam mu dindi xaaxam bi rek jox ko ne ko téyel ba bi mu téye ko xamul tax mu dénk ko xaaxam mam mansour ko dénk xaaxam bi téye ko rek téye ko rek ko ba ñeek si goor gi laaju ko ko waxu ko ci dara mu teek ci kër gi fa lañ yendu ma mansour fàtte ko kum den nak na man day sëriñ moo jox xaxam bi neen na ko téyel ni xawmu tax nak téye ko rek bank ci loxo bi bam toy xeb ba ngoon kumu dendel nga ah man ka sëriñ mo ne man ko téyel xaxam bi xawmu tax mu deñ ko ma depuis toolee ya ba na ko xaxam bi xawmu lu mu ci jublu wax ji di wër wax ji di wër wax ji di wër ba am ko ci tok ak mam mansour ba waxat ko wax ji comme diw mi nga denk xaxam fi kat da ko xawa sonal da mel mu wolu ko mu ñew mu ne ko ana diw mu ne ko ne mu ne ko indi sama xaxam mu jox ko mu ne ko merito wa am xam-xamu bir ab xaxam dong la la denk wax ji wër na ñëpp <laughs> xaaxamu kese la nak mu ne ko dara ni wu ci kon xaaxamu kese la denk wax ji wër na ba yegg wat ci man ko la jox yenn yi nga toj dekk bi ndaysan nit day am lu bir daa am yoo xam ne nit ki da koy am rek pour dundee ko digganteem ak yàlla am na leneen loo mën a jëriñee nit ñi loolu kenn du la ko nëbbuloo kenn du la ko nëbbuloo ay cadeau yoo xam ne yow da lay jëriñ rek sa digganteeg yàlla nga yokk sa pas yokk sa teraanga ngir effort yi nga def ci wàllu yàlla ñu may la ko li mën a jëriñ nit loolu sañoo ko nëbb moom la la wax ne am na xam-xam boo xam ne xamle ko farata la ci yow am na boo xam ne tànn loo nañ la mais am na boobu ñemewoo koo wax su ko defee ñett yooyu nee na. moo ci nekk kon mel ni ne liñ amoon ci ay minute jeex na bu nu ñëwaatee ñu yegg ci undur xaasiyat al bajuria ala sanusiya dinañ continuer relancer boobu ndax fii tamit ay niveau la yu xaw a yéeme kon mbokk yi ñu ngi leen di jox dig daje semaine bii di ñëw ci beneen tomb salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. فخذ العلم والمفتاح الكفر ختم القرآن